lii de xam naa ni catalan yi buñ ko yëgee moom dinañ amatul wax ci ci ci commentaire yi xaw a gaañ Mary Gueye non mais nag li ñu def nii nag rëy na trop seen masia bi salaamaaleykum amateur de foot nuyu nañ leen ku ci nekk seen tur ak seen sant nam moon ngeen ma ñëwaat naa ci jàmm ak salaam mbir koy xiir gi dañ koy waaw dañ koy indiwaat incha allah mais nag yi balaa ñoo ñëw ci li nga xam ne Barça jaloore yi seen i yi def nañ ko ñu ñëw ci match yi nga xam ne jotoon naa am ci euro euh, qualification bi tey jii mën naa ni euh, Coquette Luxembourg moo doon 3 buts à 1 Islande pour amateur de foot di xaar score yi Chypre Écosse moo ko dóor 3 buts à 0 fekk si ko dóor ko. ko kookee di Bosnie nag moo dóor Liechtenstein euh, Liechtenstein euh, xam nga tudd noonu deux buts à un ngeen baal ma un un nul kookee di Tunisie euh, Turquie ak Arménie waaye Croatie 5 cinq à 0 la lonkal Lettonie eh seen yaram tàng na nag Portugal 1 but à moom la dóor kookee di Slovaquie Cristiano Ronaldo dañ ko suspendre ah, mu ngi noonee waaye ñëw ci kookee di Espagne bi nga xam ne 7 buts à 1 la lonkal gan gi kan la dóor kookee di Géorgie ñi ki ci illustré mu indi cool yi yëpp muy lan FC Barcelone boo xoolee Lamine Yamal gars yi tey dafa battre record xale bi ki gën a doon xale ci histoire football Espagne jota football Espagne ci ay 16 ak quelques jours. jamaatuma foofu kookee di euh, Lamine Yamal ci euh, Masia bi fa la jógee waaye leneen li gën a garaaw ci mbiri mooy que euh, kookee di Barça seen Masia bi boo xoolee Ansu Fati moo njëkk battre record bi maanaam doon joueur bi nga xam ne moo gën a doon xale ci histoire FC Barcelone dug histoire Espagne dugal mu ngi noonu en 2020 yamaatuñu foofu 2022 Gavi battra record boobu ci kaw Ansu Fati doon xale bi gën a doon ki gën doon xale ci histoire footballu Espagne dugal mu ngi noonu yamaatuñ foofu ren ji en deux mille vingt trois kookee di Lamine Yamal battre record boobu ñetti record yooyu yëpp ñu battre si gi gën a doon xale ci équipe nationale Espagne boobu dugal ñoom ñëpp ay catalan lañ ci Masia bi lañ leen formé mu doon loo xam ne ni jamono ji moo jur coow foofee ca Espagne ñëpp ñu ngi ciy wax mu ngi noonu ma leen ci commentaire yi nan ngeen ko gisee yéen catalan yi en tout cas critique bi kaana lool catalan yaa ngi ciy kaañ merengue ñoom seen mais tamit. vraiment Real de Madrid tamit euh, yàgg naa forme ay crack yoo xam ne jàppale nañ Espagne et mu ngi noonu merengue ma leen xaar ci commentaire yi yéen kan ngeen forme koo xam ne nii toj na Espagne ngeen bindal ma ko pour tontu baax saa ñi nga xam ne boobu ba léegi wax ñuy wax rek maa ngi gis ci réseaux sociaux yi ku ne di partage di poster rek ñu wax rek de mu ngi noonu en tout cas vraiment félicitations à vous les les merengue maa ngi xaar ci commentaire ñu ngi ñëw ci yeneen vidéo incha allah leeral leen information yi jot am tey jii jàmm ci yéen gaa yi ñi nga xam ne abonné guñ sama chaîne YouTube c'est simple dugg la sunu bio TikTok nga posté ko YouTube mu yóbbu la chaîne YouTube bi nga abonné activé cloche di seetaan vidéo yi ba mu jeex loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax jàmm ci yéen gars yi ba beneen yoon ci yeneen vidéo fii laa leen def gis naa seeni soutien ak lépp jaajëf الذين يعملون السوء ومما تجعلون ما علينا صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرحيم كانوا من آياتنا عجبا استوى الفتية إلى الكهف فقال وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحسن takbir. Allahu Akbar. dañ leen yàlla def ay Sinois. ngeen mokkal alxuraan. ngeen mokkal alxuraan moom seen yaay dañ kontaan vraiment. loolu nag leen bu baax a baax. si yaatu macha allah. dañ leen yàlla def ay Sinois. def leen